Sène waaw waaw Ousmane Sène te Sa Thiès rakk Balla Gaye Sa Thiès Sa Thiès Franc yëngal na kooku mooy Sa Thiès sa ñu ngi fii ci combat bi nga xam moo war a dox euh, diggante euh, Lac de Guiers 2 ak Boy Niang 2 euh, sa xalaat ci combat bi tey lan lay doon. lamb mu neex la xam nga jot na xam nga préparé ko kenn ku ci nekk ànd nga ak ñi nga war a àndal def nga li nga war ay réer ka ci des waaw ñaan yàlla Lac de Guiers yàlla may ko ndam ci ak Seydina Mohamed. lu parce que ñoo ànd préparé ko. waaw pare nañ ci bépp plan nag. saa ñu loolu. loolu li ñu dañoo war ñu def ko rek du leneen. parce que bu